jataay bi wax leen ci yenn projet yu mag yu ma am ci ak waa xam ni suñu liggéey day doog a tàmbali ak yéen li nga xam ni mooy place de France dinañu ci engagé ay travaux yu mag a mag a mag yoo xam ni c'est plusieurs milliards pour ñu moderniser ko ba mu tolloo loo xamante ni dina méngoo ak dayoo Thiès gis ngeen dëkk bi ci wàllu pavage dafa manqué bu baax a baax a baax quartier yu bëri dañ ko waroon a pavé comme Dakar yu bëri dañ ko waroon a pavé marché public yu bëri dañ ko waroon a pavé les lieux muy juma muy église yu bëri dañ ko waroon a am naa ci projet bu yaatu bu ambitieux ci 2025 bi incha allah dinañ ko tàmbali bu baax a baax. ci cellule yi cellule yi ñi feebar war a faju mënuñu faju chaque jour ñu ñëw à la mairie yi defal ay prise en charge si leen jàpp teg nañ benn programme cellule boo xamante ni mobiliser nañ de l'argent pour que vingt mille pièces soient avant la fin de l'année dugg ci vingt mille pièces soient et ci cellule boobu dugg ci yomb na parce que trois mille cinq cent boobu mais 3500 yooyu 2500 yi mairie bi moo la koy cotiser keesuwaat bi 1000 rek lay cotiser pour programme mu semis boobu. dinaa wax ci bourse scolaire ndax xale yu bëri dañu bëgg a jàng bëgg a def formation école yi cher formation boo dem ñi laaj la soixante mille quatre vingt mille cent vingt cent cinquante mille francs. parent boo xamante ni da ngay daw dépense nan ngay mën a fay quatre mille francs par mois parent boo xamante ni da ngay daw ngir jënd mburu nan nga mën a fayee soixante-dix mille francs wala mille par mois loolu moo tax ma taxawal programme bourse scolaire ngir jàppale jeunesse su Thiès ndaw Thiès yi nga xam dañu war a jàng def naa ci plus de cent millions ay doomu Thiès mais di fayee leen ñuy jàng ren def nañ ci deux cent trente-huit millions plus de mille Thiessois di ay doomu Thiès di ay góor jigéen di jàng à travers trente-six établissements mairie bi di leen fayal ñu war a def formation ñu war yu war a teg lenn rek lañ ci jublu jubluwuñ ci ñu ñëw di remercier monsieur le maire non non non xale yooyu lu ñu jàng am seen diplôme nañu tekki ñëw suba pom pom ñu seen wéy jur pour loolu ci ci deux mille vingt cinq bi bourse ko yóbbu ba plus de trois cent millions et suma ambition mooy fii ak deux ans mën a jox des bourses étrangères doomu Cees ñu mën a jàngi bitim réew ñi bu na donc loolu ci suñuy projet salle municipale aussi bi ma demee Russie dem Sébastopol ñu am fa ay projet yu bëree bëri ak Sébastopol yoo xamante ëpp na un milliard d'investissement ak Sébastopol sur un plan d'action boo xamante ni septembre 2024 septembre 2025 donc la ville de Sébastopol jël engagement yi dañu jàppale à Thiès ba ñu taxawal SAMU municipal loolu aussi mais aussi ñoom ñu am engagement jàppale ñu ba ñu rénover le stade municipal bu Maniang Soumaré def ko piscine olympique loolu aussi bokk na ci projet yi nga xamante ni mais aussi ci dinañu dem ci phase 4. phase 4 de l'éclairage public ci 2025 phase 4 éclairage public boobu ñi ngi ko jagleel quartier yi dama ni délégué de quartier bu ne jox naa la fiche la sa quartier ñaata lamp ñoo fay ñaata poto lamp la manqué yu bëri dañu li ñu ci jublu mooy Thiès lu am benn quartier buy jooy samay lamp tàkku donc loolu ñu ngi phase 4 bi jëm ci phase 4 éclairage public ci deux ci deux mille vingt